tàkk kuy galis na mooy gande baba jaay waaw ñàkk ma man boye waaw waaw bàyyi naa ñi ma amoon ba mu bandoone ma ay la sama yaa ne daan jaay ji ji joor na bur bu yaroo baax bëri xam-xam day jëli kii mu am joom bu ko jamaan waa nit bu baax du ñaati noom waaw waaw gaay yi daal di jëkkati na waaye ñaari doomi ndey la nag la boole nag bu kel naa bu bu ku juum asalaamaaleykum euh, mbokki euh, internet yi asalaamaaleykum mbokki euh, Bambey 24 asalaamaaleykum mbokki population de bambay waaw ñëwaat tey di am mbégte di wax ak yéen ci benn xew-xew boo xam ne ni vraiment moo fi am le quatrième jour après la Korité muy Baol Production assan Assane euh, Sène euh, jiite ko buy promoteur bi assan Sène je pense que ku ne xam na ko au niveau du département de Bambey ci taxawaayam ci ni muy jàppale jeunes talents yi lutteurs yi vraiment mu organiser nag euh, gala bu mag boo xam ne nii quatrième jour après la Korité la muy tuddee ko nag drapeau bi les apéris drapeau apéris de yi vraiment mu doon drapeau boo xam ne nii bu mag la boo xam ne ni vraiment mbokki Bambey yëpp ñu ngi leen ci woo parce que je pense que boo jëlee ku mel ni suñu coordonnateur départemental muy monsieur Mor nga def ko parrain jël ku mel ni son excellence euh, El Hadj Dia nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci jàppale jeunesse su Bambey ak taxawaayam ci biir Bambey vraiment nga jël ku mel ni aussi euh, monsieur le maire Assane Dia nga xam ne vraiment moom it taxawaayam ci biir population bi rafet na nga jël ku mel ni aussi. Mathioro Fall nekk commune de Thiakhar vraiment mu doon ex maire mais doon maire boo xam ne ni aussi ku ne xam na fi mu féete population Bambey nga jël ku mel ni aussi monsieur le maire Gana Mbaye maire sortant aussi nga xam ne vraiment taxawaay moom aussi ci au niveau de la population de Bambey rafet na vraiment nga jël ku mel ni aussi maître Pape Sène nekkoon maire sortant ndondol taxawaayam aussi rafet ci population bi nga jël ku mel ni honorable Fat Sène vraiment son excellence daa koy wax sax man honorable Fatou Sène ndax taxawaayam au niveau des femmes di département ku ne xam na ni rafet na ndax taxawu na jigéen ñi foo xam ne nii vraiment moom la président de la république son excellence monsieur Macky Sall bëgg nga jël ku mel ni aussi nguy faama fay nga xam ne moom aussi ku ñu ku ko xam-xam ne femme de développement taxawaayam aussi rafet au niveau des populations mais aussi surtout ji jigéen ñi taxawaay bu honorable la ci am je pense que comme ni ko ni ma koy waxee léegi rek day doon drapeau boo xam ne ni bu mucc ayib lay doon parce que bu ñu nee les apéristes de Bambey wax nañ le noyau politique de Bambey te loolu dafa doon lu am solo loo xam ne ni warul yombul quatrième jour après la Korité kon je pense que drapeau boo xam ne nii bu mucc ayib la war a doon. de ce fait que nag pour wane ne drapeau bi dañuy def cérémonie boo xam ne bu mag lay doon li militants yi sympathisants yi. ak leader politique yi nekk APR lépp au niveau du département de Bambey tase fa au de la mairie de Bambey vraiment ñu def remise des drapeaux pour parents yi nga xam ne ñoom la ñu lim fii sànq mu doon drapeau boo xam ne nii bu mucc ayib lay doon quatrième jour après la Korité. nekk fii nga xam ne tey moom lañu indi tey présentation drapeau bi nga xam ne les apéristes de Bambey lañ koy wooye mu nekk ay hommes de développement nga xam ne tey boo waxee monsieur le ministre Mor Ngom wax nga Bambey nga tudd l'ambassade de El Hadj tudd nga Bambey nga ne Assane Dia le maire actuel tudd nga Bambey nga jël jóge foofu ñëwaat le maire sortant Gana Mbaye kooku kenn ku ne xam nañ ci social bi muy def Bambey nga ñëw ci maître Mathioro maire Caxar kenn wax kenn natableetu ko nga ñëwaat ci ki nga xam ne mooy le maire sortant maître Pape Sène sama xarit sama mag nga xam ne nit ko dëggu bëgg fi mu dëkk aussi nga ñëwaat ci ki nga xam ne mooy Badiane Badiane moom Badiane ñëpp la ndaxte man bañ naa ko sax ba souvent bu ma koy wax sax du ma ko dama naan sa doom te loolu moom moo ko moom moo ko wone ba ñu ñu gis ko ci moom kon tey am nañ fierté aussi bu ñu ñëwee tey mu dala ñu aussi dañ koy wax ñu ngi koy ñaanal aussi yal na ko yàlla lax fu yàq égul ñu ñëw ci nguy faama mu nekk femme développement aussi tey ñu am fierté tey drapeau bi ñu jox ko waa APR olof Njaay na nag ragal pété day xañu wërsëg man cent pour cent APR la lépp lu may def tamit depuis ba ma commencé 2006 ba léegi dugg ci làmb man drapeau APR chaque année dama ko organiser mais nag bii moom ma ci daqal bii moo ma ci daqal ndaxte dama doon ñaan yàlla tey boole tey union bi pour def ko drapeau kon euh, ñoo ngi ñaan yàlla daal yal nañu yóbbu yàlla yóbbu ci bés ba ba ak jam bu soobee suñu borom.